asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV mbégte ak contentement lay am di jën ak yéen chaque jour noonu laay def rek ne saraax ci journal suñu làmb ba mu xëyee nag ci xatam mu njëkk les dix combats combats yi nga xam ne moom lañ a la axlu a soxla di dox ci de Guiers numéro ne boobu mooy première bi ñu dem ci ki xam ne mooy Reug Reug ka ca Géej mbër mi nga xam te dafa sab sab fu ne nii ci wàllum làmb kan ko bëgg a boole nag di Sa Thiès la lion soo raq Balla Gaye numéro 2 waaye yaakaaru Guédiawaye fu mu nekk nii ñi ne kan mooy topp Diène Kaïré ak nga xam te ne mooy Siteu kan lañ ko war a booleel fu mu ne nii nag nañuy xool ban promoteur moo war a tëggale boobulee combat waaye ba léegi nag combat bi nga xam te ne mooy dox ci diggante Tapha ak nga xamante ne nii mooy Lac de Guiers numéro 2 combat boobu taxawee dina nekk revanche waaye revanche boo xamante ne nii am na 15 ans femme revanche boobu dina nekk mag de ña ca juddu woon ñëpp fu mu ne nii ñu ngi dox seen soxla ñii am nañ jëkkër ñii am nañ jabar Diène nag ak Siteu lañ ci mën a am daal li ci kanam rawul yi gët ba léegi nag combat bañ bëggaat di dox ci diggante Papa Sow ak Gouye Gui neneen combat boobu mën naa am ba léegi combat bi nga xam te ne mooy wax Tidiane Faye ak Marley neneen nag combat boobu mooy régal li nga xam te ne mooy régalu bëti la maanaam duufal say bët la dër bi ànd kan Fass ak Pikine ba léegi ci beneen combat nag Thiat ak Quench combat boobu nag la ñuy xaarante ba léegi maanaam axlu làmb bëgg nañ ko Modou Anta Alioune Seye numéro 2 nga xam ne moo jommal mag ji fu mu nekk nii daan Zos daan Isaapu yi moom lañ bëgg a boole nga xam ne mooy Modou Anta ma ca Thiès nga xam ne ki nga xam te ne mooy Diène Kaïré moo ko mujjee daan combat boobu nag li xam ci xam ne mooy bagaal daa leer la moo tax ñaari xale yi mën nañ xeex bëgg nañ xeex te seen combat day metti lool lool lool lool beneen combat bañ bëgg nag di Zos le showman roi wu parcelle nga xam ne parcelle bu mbër bu fa xasee ba yeew bu am fitu tax ngeem zos moo tax ñu naan ko le showman ka lañ ko bëgg a booleel Moussa Ndoye Moussa Ndoye nga xam ne ginnaaw ba mu lañ cee ci diggante ak Sa Thiès ñu ngi xaar boobu le combat lan lañ bëgg combat bu neex combat bu yàgg waaye combat boo xam ne déclenchement lay nekk ci ñoom ñaar Yékini Junior ak Garga dër bi parcelle la wax waaye ñaari mbër yi fu mu nekk di nekkuñu Sénégal ñoo nga ba États-Unis la lañ bëgg est-ce duñ ko yóbbu MMA femme ndax combat boobule bu ko gars bëggee dañuy xaar ñaari mbër yooyu kenn ku ci nekk ñibbisi waaye lu ko mën am ak lu bëgg nañ ko Reug Reug Sa Thiès lañ ko tuddee mooy règlement de compte ndax lan Reug Reug daan ki nga xamante ni mooy guy ne man nag sama oto bi sama gaal bi dama koy gaare fi nga xamante ne nii mooy géejawaay di xaar mbaru géejawaay kan nga bëgg mu ne Sa Thiès wala de guerre numéro 2 gars yi nag combat xale lañ bëgg maanaam Sa Thiès ak nga xamante ne nii mooy rëg-rëg ba léegi nag Ronaldinho Ronaldinho nag ka may tontu di adversaire am di Kaw Gourdin la mu koy xam ne mooy combat ba jour bi moom mooy manoeuvre combat bi maanaam combat bi li fi am lépp moom mooy bëre moom mooy xeex moom mooy daan daal di yóbbu gi la ci kanam rawuli ba léegi Mama Lamine Mama Lamine numéro de nag fils de Samsam la war a bëreel dimanche dimanche boobu nag choc ba dañ koy xaarandi mën na la nekk combat bu neex a neex faama kan moo taxawal combat boobu xale bi ci parcelle xale bi nga xam bu bëree mu neex ah bu tegee combat day neex ñi bëgg ko loolu di ko ñaanal jàmm combat bi réussir ak jàmm salaam ba léegi nag ki nga xamante ne nii mooy góor a sog góor soog écurie parcelle la nekk parcelle la dëkk mën naa ne ginnaaw ba Modou Lo déposé <laughs> certificat médical kii di góor soog daal di déposé certificat médical combat ba noonu am nag digganteem ak ki nga xam ne mooy fils de Balla combat boobu reporté nañ ko maanaam combat boobu le vin bii ñu ko doon xaarandi du am la ci kanam nag dinañ xool promoteur ba di jamaïcain lan la ciy attu waaye kii di adversaire am di fils de Balla la ciy àddu aussi dinañ ko ci bi ñëw bàyyi ma njoon war a bëri ki nga xam ne mooy Zarko ñu koy xaarandi ñu ne huit la am trois victoires en dix ans ñu xool nag ki nga xam ne mooy Bamay Ndoye moom mooy échelle u xale yi maanaam li ko mag yi di woowee garab gu daan la xale yépp ci moom la jàngee daan waxuma ko journal bee ko wax ba léegi nag galaa ba doon am jof Diofior 12 ak 14 ka fa jël raw gàddu ga rek mooy Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye moo jël raw gàddu ga daal di jël final ba keneen beneen galaa ba léegi Diofior la amee poids léger yi ka ko jël mooy Sele Mele Sele Mele nag boo fa jël raw gàddu ko moom mooy de di ko wax félicitation ñaanal ko mu jikko te beneen compétition bu amee mu daal di cay demaat faama ba léegi dañuy desandi journal suñu làmb ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi sama jëkkër bopp bi kooku moom xam naa man lay def taqoo <laughs> xam naa pa bëgg na bëgg naa ko ma nga doon mayee doomam nag euh, dimanche bi passé di ko ci ñaanal jàmm heure ménage li mu bëgg ci sëy bi mu am ko njaboot ju barke barke barke barke ba léegi nag CNG ma ngi amal formation formation ba nag durée bi 3 jours la kañ lay débuté tey jii ni lay débuté ca CNG 9h lay commencé ba 18 ci arène nationale ba léegi nag journal suñu lamb dañuy desandi ki nga xam ne mooy franc kam war a bëri ñu ne soqaloo bëri ñoom ñaan ñi seen face to face mu metti loolu ñi daal di ñemente ku ci nekk xas-xas loo waaye kii di nee na ko man yaakaar moon bëri ak yow xalaatu moon sa bëri ak yow ñëw dal nii rek ma jël la ndax man bëre laa bëgg bugguma année blanche moom waruma jël man ka ma espéré woon bëre mooy Forza wala Diène Kaïré wala ki nga xam ne mooy waaye nag jaam ak dogal yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam moom noonu la ko bëggee waaye yàlla ki nga xam ne mooy soq ku xuloo ko booleel ba léegi nag ki nga xam ne mooy mbay guy gi sey Zarko lu tax loolu keroog ba mu ko daanee fee ca Ibamar ki nga xamante ne mooy Zarko ay supporter dañ ko defal ndaje maanaam samedi bi waa passé defal ko fête bu mag foofu la ci këram surprise ba ca nit ñi am nag mooy kii di adversaire ki mu daan di mbay guy gi moo ko daal di ñëw daal di koy ndokkeel bu baax a baax ñu koy saluer bu baax geste boobu fair play làmb la kaf ak foole suñu bëree bu làmb ji jeexee ñun ñooy bokkaat ndey bokkaat bay mbay guy gi félicitation à toi ba nga amee xel bu rafet boobu noonu ki nga xam te ne mooy yaxiir yaxiir ak ki nga xam ne mooy bébé diwaan ñoo war a bëri le 20 combat ba annulé wu nag mun naa ne ba reporté wu Fils de Balla ak Gora Sock waaye combat bi moo nar a amee combat bi dana ci xaarandi xeex xeex bu métti ndax ñaari xale ñemante nañ torop torop torop Big Pato promoteur la mbër la waaye <laughs> dañ koy bëggee bu baax a baax xaritu wulli mu nga fee ci États-Unis ka ci États-Unis nag nga xam ne dafa tontee sénaasam tontee noppeem li ñuy naan noppi ak wax bokkul kii wax na ko noppi wax raison la waaye aussi noppi raison la ñu naan combat bi nga xam te ne mooy dox ci diggante moom ak Dièye Kaïré Siteu nag borom lamsaar tarkindaa bi ma ci États-Unis dafa ne boole pot ak organisé maanaam yéeyu ci yàbbiwu ay ca la may yéey da yàbbi nag man mii mooy li gën a fës xibaaru làmb di leen jaajëfal bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fës di leen bége di kontaanee bu baax a baax faama Dramé di ko bég bég ci moom bu baax a baax sama caméra bu man bi jóoba juba damay kontaan ci yow daba sama doomu mbaay kenn du yow umu laay laay maxtaar bég naa ci bu baax a baax a baax a baax ah laay laay laay kontaan naa ci yow ki nga xamante ne mooy Sophie ah bëkk nekk dama lay bégee bu baax a baax kenn du yow Aïda Diouf ña ko bàyyi sama taawu jigéen bi ah doomu Modou Maye maa ngi bég ci yow bu baax a baax ayca noonu laay def rek daal di ba Bawal production dugg Bawal TV fekk fa Assane Ndiaye di ko ñaanal jàmm gudd fan naan ko happy birthday promoteur bu gën ci promoteur yi patron bu gën patron yi waaye mag bu gën ci mag yi di ko ñaanal jàmm tey siin sutura at nag àllaaxira li mu bëgg ci àddunaam bëgg ko yàlla defal ko ko di ko ñaanal jàmm yaa gën ci ñun gën ci ñun baax ci ñun gaaw ci ñun aussi njaay jaata njaay kenn du yow bëgg naa ci yow amal jàmm gudd fan tay si li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal waaye nag tey lekkal ndànk de sinon da ngay fot xam nga njaay nga sant ay ca noonu laay da jox leen dig ëllëg incha allah di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaajëf